vraiment tey ñu am mbégte ñëw fii ci village yu Daaru Fall ak li ko wër taal courant bi bi nga xamante ni dafa jóge ci PUDC programme d'urgence du développement communautaire nekk benn banqaas ci plan Sénégal émergent bu son excellence président Macky ci vision am mu jagleel ñu ay village yoo xaman ne ci programme boobu la bokk tey nag ñu ngi fii Daaru Fall di fi taal ñaari réseau bu njëkk bi mooy Daaru Fall 2 ñu war a départ dem taal Daaru Fall boo xoolee nag moom coiffé na six village global parce que euh, loolu euh, vraiment dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax di sant directeur PUDC waaye di ci sant aussi ñi mu ko dénk kii ma fegool di Saliou fay nekk yàlla baaxal taxawu liggéey bi waaye également ak son frère Abdoulahat Mbaye mais ak ñi nga xamante ñoom la lañ fi yónni woon nekk ñu baax ñoom Abdoulou ñoom Silla ñoom ak entrepreneur bi Cheikh mbay ñëpp ndax fépp foo xamante ni ci cartographie bi sax gis nañ ci plan bi amu ci woon wax dëgg yàlla ñaan nañu leen ne fii de bu fi poto agoon dina baax lépp fu luñ ko ci wax rek mun ne na ko laat seet wala ab laat ñu dem defal ko études yi mu accordel ma donc loolu dañ ko ciy sant di ko gërëm tey ñu ngi fii le di le 20 le 22 di vendredi incha allah ñu ngi war a taal yeneen trois villages à l'ouest de la commune muy Gébb Séeréer di Dar Rahim ak euh, Baye Ndiaye foofu noonu lañu ñu war a dem euh, vendredi incha allah pour taal ko donc loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di gërëm encore une fois man daal vraiment PUDC am naa ci bénéfice bu nga xamante ni doo kenn dootu ko fàtte. parce que euh, euh, vraiment mën naa ne globalement am naa ci douze village ndax beneen commune bi ma fegool dafa génn village boo xamante ni daf fegoo ak suma ay village ñu yóbbaale ko muy Baxdaas di Mbarikel ak Ndiané plus neuf yi ma am muy douze au total en tout sens. lu ñu fi def en terme de réseau c' est quatorze kilomètres de de réseau bas station avec euh, plus de huit cent poteaux loolu rek xaalis la loolu su ko doon xayma. en termes euh, de budget mun na egg jusqu'à deux cent deux cent cinquante millions kon on a beaucoup investi dans ce pour permettre à ces population de bénéficier de l'électricité di sant Moussa le maire ndax ñoo ngi fii ci Daaru Fall mu doon Daaru Fall gu Serigne Cheikh Ndigal Fall lii nag ñu yàggoon ko sàkku waaye maire yu bari jaar fi yàlla dogal mu sottee ci Moussa le maire as ñu ngi mii ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ndax fii tey jii ni ma koy waxee rek ñu bari heure bi bu mosaan a jot duñ mën a dugg ci dëkk bi ngir ay agression yoo xamante ni euh, lëndëm gi moom moo ko waraloon. te wax naa ko léegi Sine Sall nee naa ko créé ngeen emploi yu ngeen yëgut ndax tey jii xale yoo xamante ni dañoo dëkk fii yoroon seen i machine nekk ca biir dëkk ba bu subaa mën nañ koo indi fii ba dee machine ñaw la wala machine soudeur wala machine boo xamante ni machine bois la wala boo tey jii machine wal lépp suba incha allah mën nañ koo tàmbali indi fii di waajal installation lii Euh, jéego bu rëy la boo xamante ne dana tax population bi gën a soulagé wu gën a sentir seen bopp ni ñoom ci réew mi lañ bokk gën a tamit seen xel gën a dal fii tamit gën a nekk ville boo xamante ne ville bu moderne lay doon kon ñoo ngi ciy sant bu baax a baax monsieur le maire mi nga xamante ne réalisation bi ci moom la ko yàlla awale. mbégte lool bu baax nag. di ñaanal suñu monsieur le maire bii monsieur le maire El Hadj Gningue maire de la commune de Touba Fall ndax lii loo nga xamante ni yàggam yàkkamti woon dañ ko lool mu nekkoon une vieille doléance boo nga xamante ni yàgg dañoo war di fi ñëw femmes yi di ñu ko jooytu ñëpp di ñu ko jooytu comme yàlla def na tey suñu borom jaarale ko ci ay loxoom dañ koy sant di ko remercier bu baax a baax a baax a baax te di ko ñaanal ndax euh, li mu réalisé ci commune bi ci depuis deux ans yi ñun femmes yi gis nañ ci bopp bu baax a baax a baax a baax waaw may xamal ne ñun jeunes yi ak ak charge yi ñëpp rangé wu ci ginnaaw monsieur le maire parce que maire la ba nga xamante ni développement commune rek moom moo ko ñor ñuy ñaan nag son excellence monsieur le président ki nga xamante ni moom lañ nar a tabb fal ko muy muy muy suñu président cinq président monsieur du baax bis bu toogee nañu ko nomeel ministre wala lu kawee sax ministre parce que maire rek la doon defal ñu lii lu kawe suñu njort kon bis bu doonee ministre dina na defal loo nga xamante ni bu boobaa ñun ñëpp dañ ci a gis suñu bopp bu njëkk buñ musaan dem ci buñ bi sax di togg wala dara dañ dañuy am problème fu ne dañ fay làmbatu dem ak ñëw ndox suuf yi nga xam ne dañuy dox guddi suñu doy yi duñ leen ñima sax a yónni fenn duñ dem fenn ndax lëndëm tey nag lépp jeex na vraiment tey daal moom kontaan nañ kontaan nañ fu kontaan di yam daal di ko remercier di ko sant bu baax a a baax a baax